li gën a fës si xibaar bokk na ci tournée bi ministre de l' di amal ci biir réew mi ginnaaw bi président de la république njëkkee génn démb ci wàllu inondation yi demoon Kër Massar Aly Ngouille tey jii xëyoon Bambey Njaareem ak euh, Touba Njaareem nag euh, nee dinañu xool nu ñu leen di yokkale li ñu leen waajaloon ci plan Orsec bi ndax euh, dayoo ba mat na ko ñu déglu ministre de l' ci micro Babacar Diouf. waaw waaw dama ne la da dama laaj lan la Jurbel am ci mi ma ko Jurbel Euh, man ci sama jëm bopp maa waxoon nañ yokkal Diourbel parce que xam naa Diourbel ensuite màggal gi mu ngi ñëw donc il y a tous ces éléments qui faisaient que ñu defal une part à Diourbel mais au-delà de ça il y a une part bi nga xam ne c'est au niveau national parce que xam nga cette fois-ci dañuy def euh, bi ñuy def plan sec, bi danañ nañ jël 37,5 avec les autorités concentrées. comme ça la yi le yi ñoom exactement ñi sur place am nañ fi fournisseurs yoo xam comme ça duñ fi am ay logistique ak affaire donc loolu mooy li maintenant ñu def au niveau national parce que niveau national ay pompe Ah, daal après ñu séddale moo gën a yomb kenn ku nekk nga ne jëndal ay pompe mën naa am doo am pompe dëkkal di duñ ko am donc loolu moo tax au national ay tuyaux ay pompe fa lañ koy jënd maintenant jox leen ko ñi nga xam ne ñoo ko soxla donc moom la ñuy def également pour Diourbel am nañ ci seen wàll baax a baax ñu des ci wàllu inondation yi ba léegi nde Touba programme décennal bi nga xam ne ci la ñu tàmbale woon la fa jotoon am nee nañu bërit ji amoon na solo defoon nañ fa nag loo xamante ne nii lijjanti woon na fa ay problème waaye ginnaaw bi nag la taxaw ni ñu ko gisee ci ay gox yu bëri li fay am fan yi nag Touba ca kanam moom moo ko fay euh, gas coordination SAES e euh, syndicat bi ëmb jàngalekat yi njàng mu kawe mi ci euh, université bu Dakar nag ñaawlu na daq gi ñu dàqaat élection yi ñu waroon a amal nag di ci fal directeur u CESTI école bi ñuy tàggate journaliste yi moom nag euh, muy ñaawlu bu baax a baax itam ni ñu leen ko yëgalee section SAES e ba nekk foofee ci CESTI wax ñu wax leen li xew ci mbir mi yépp ca bitim réew France jàngoro jàngoroy coronavirus ji dellu fa ginnaaw benn yoon nde tey jii jot nañ ay cas yu bëree bëri yoo xamante ne ni yokk na ñu ni mën naa nekk sax ab record treize mille nouveaux cas par jour tey jii kese boo xamante ne nii gis nañu ko fa. tàggat yaram jaraaf ak Tëngéej FC jox nañ leen nag liñ leen di jàppale ñoom ñiy dem ci compétition africaine yi kenn ku nekk trente cinq millions la. Euh, fonds Covid bi 15 millions ak euh, fonds spécial bi ñuy jàppale club yi itam ci compétition africaine yi 20 millions beaucoup de boolee 35 millions kenn ku nekk ci ñoom ñaar ñu yem fii leen gërëm bu baax a baax ci kanam tuuti ngeen ànd ak euh, Sidaat.